mbokk sa not ginnaaw bu ñu leen nuyoo ki nga xamante ni moom mooy Simon Y'en a marre ki nga xamante ni moom mooy kilifa ñoom jamono ji ñuy wax ak yéen comme ni ngeen ko xamee yoon daal dina leen téye yàggul di leen toppee ci li nga xamante ni moom mooy mbiri euh, visa maanaam junjaat ci wàllu visa ak passeport diplomate ndax ku ne xam na ni ki nga xamante ni moom mooy kilifa taaliba taalibe sëriñ Abdou Karim la daaw ci heure bi mi ngi woon ci watam waaye ren comme ni ko yàlla tuddee mi ngi fi nga xamante ni moom mooy nungu siin ñoom tey nag ci bëccëgu tey gi dañoo bind ab lettre jagleel ko Sénégalais yi waaye jagleel ko ñi nga xamante ni moom mooy suñu mbokki murid yi ci lettre ba nag lañ ci wax mooy ñu ngi jaajëfal di ñaanal Sénégalais yu bari ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñaanal kontaan nañ ci ñaan yi waaye gis nañ ko ñi ngi ñaanal tamit Sénégalais yi ci lépp lu nga xamante ni ñaan nañ ko ci màggal gi yàlla daal di koy nangu ndax ñeneen ñoom ni moo leen dal nangu niñ ni ndogal la bu jëm si ñoom te dinañ ko nangu lépp li nga xamante ni jullit dafa war a nangu dogal ñoom dinañ nangu ndogal boobu waaye également ñi ngi jaajëfal sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi leen di jàppal tànk ci mbir mi waaye tamit ba léegi ñoom ñooy wax nee nañ nañ ñi ñoom defuñu dara gëm nañ ni lépp li nga xamante ni ñu ngi leen koy taxal nekkul yoon waaye wóolu nañ bu baax a baax justice Sénégal maanaam yoonu Sénégal ni muy doxee am nañ dëgg ci seen i mbir loolu mooy lettre bi nga xamante ni Simon ak ki nga xamante ni moom mooy kilifa daal nañ koy jébbal sénégalais yi di leen ñaanal màggalug jàmm mi leen di amoon seen site d'information bi di Dakarnet dara du leen rëcc ci